association bi Baatu Lawbe la tudd mu signifié euh, pencum lawbe be. Liko ko moy nag dajale askanu lawbe ndax dañoo dàq politique sunu politik politique dafa bari lu mu yàq ñu viser nag sunu aada ak sunu cosaan pour mën dajale ndax ñëpp ci bokk yem aada beeg cosaan bi lawbe yëpp ko bokk kii ay lawbe ñoo ko xalaat mais nag pour lawbe gépp. Mamadou Sow sunu mam la ju baax ju fi nekkoon njaatige law ba yëpp nag ndax gàlle maalo fa la ñëpp doon dal bi bi balay dara di xew moom moo nekkoon njaatige ñëpp ci Medina law ba fi lañ doon dal ñu teete leen won leen ba yàlla def ñu xam te moom mu nekkoon nit ku nekk ci keppaaru maam limaamu doon yëngu ci diine programme le neuf bi euh, le matin ay panel la ñuy def ay boroomi xam-xam di ci wax ndax dafa am sujet sujet bi mooy origine et itinéraire des Laobé jusqu'au Sénégal Borom xam-xam yoyu nak bokk na ci professeur Fallou Sow bokk na ci professeur Assane Sow bokk na ci docteur Baydi Dioum ñooñu volet euh, technique bi lañuy wax Amna ñeneeni ñeneen mag tam yi nga xamne tradition orale bi lañuy indi ndax ñun dàquñu ci ben. ñaari version yëpp dàquñu ci ben. looloo tax loolu lañuy ñëkke. bu après midi ba dañu am ben cérémonie officielle après bu ñu ci cérémonie officielle bi am ay allocation après nak activités culturelles yi commencé. ñu ngi woo sunu mbokk yëpp bàyyiwuñu kenn mboolem ku naan mbii mi ak mbiimaa mi ak seeni xarit ak seeni am di jàmm woo nañ la pour nga ñëw fekke bés bi ñu wax la yow yaay kan nga xam yow yaay kan gën a fonkaat sa bopp boo fonkoon sa bopp dix bu bés ba boo fa jógee da nga fonkaat sa bopp cinquante. association Battu Lawbe pour euh, ubbi seen première rencontre. culturelle euh, de cette association mi nga xam ni tey lay door suba ak ginnaaw suba ñu doore ko tey benn activité religieuse bi nga xam ni euh, wàcce kaamil la woon bu ñu doon def fii ndax suñu maam Mamadou Sow moom la ñu rencontre yooyu ak journée yooyu ñu ne nag baax ci ñu sargale ko euh, ndoorteel rencontre yoyu ci def euh dajé fi wàcce fi camir tuddu fi suñu borom kar fi ba pare and waxtan fi tuuti ci mom ba pare and nak dem ziar ko. Euh, li ma bëggono yok rek ci li président daayira Mamadou Sow wax moo effectivement journée culturelle yi wala rencontre culturelle yi dafa dugg ci ben programme bu am solo.

tey nak dafa am luniu ñu def lu yees ñu di ci woo nag képp kuy doomu law bi ana loolu lan la mooy bu ma doon euh, misaal askanu law bi ci garab dama naan car ya ca bànqoosu da nga dafa am fu ñu moy mooy dàtt bi mooy tronc bi tronc boobu nag mooy cosaan aada da nga nit ki ci cosaanam ak aadaam ci lay xamee démbam defar ci teyam da nga waajal ci ëllëgam te loolu c'est un appel dama koy lancer nous suñu mbokk yëpp jeunesse Lawbe ñu ko kon participer au développement économique et social de ce pays Nous ko mën ko culture premier président de la République du Sénégal indépendant kan Léopold Sédar Senghor la le développement euh, commence et se termine par la culture donc culture lañ di ci woo ñëpp.